asalaamaaleykum mbokk yi temps asalaamaaleykum waaye yi fi xew leen temps yi di xewaleen na li daan mooy bayre bukki bayre bukki cee ah, war naa teggi tànk temps yi nag war naa teggi tànk de li jaaduwul bayre bukki temps yi day vraiment sant yàlla de xewaleen na na cee xam nga bayre bukki moom des doy waar mooy koo jige sax jox ko ko jige rek rek mu laal si mu jël si cee bay de bukki man de xam naa ne bëggoon duma ko laal lii doy na waar doy na waar lool lool lool lool lool su kontaan ngeen de ndax seen xol sedd na wala seddul laa bëgg xam ndax bëgg ngeen wala bëggu leen yéen laay déglu de ma ni kontaan ngeen wala bëggu leen ah man de fi ne taw feex ne de macha allah. macha allah macha allah macha allah moom ah, moomul wàññi bayre day dama koy wut waaye nag fi mu nii day yëfi dana waat ah, ah bu soobee yàlla day ah léegi yëpp dox léegi lépp dox léegi ah, <coughs> leen nelaw de bu soobee yàlla day dinaa génne yu bees de dinaa génne yu bees. bu leen sori de maa ngi ñëw topp leen ma rek sama gars yi nii rek topp leen ma ah eh aywaay Sonko Diomaye de Sonko Diomaye sama gars yi mer boo ko de jaajëf